lay nuyu di la ziar. si ñu ngi delloo waa Diassigui TV ñoo ñëwoon si dëkk bi ñu tuddee Gandoul ñu bëggoon xam dëkk bi ban liggéey moo fi gën a dox. liggéey bi ah liggéey yëpp a dox fii nag maçon électricien menuisier yëpp dox na fii moom. est-ce que jeunes yi ñu ngi liggéey ñu ngi xar ñu ngi xar seen tànk tubéy bu baax. waaw fii moom ñu ngi xar seen tànk tubéy bu baax a baax a moom tubaar fa kala macha allah jeunes yi moom ñu ngi liggéey bu baax a yëpp ci liggéey yëpp moom. côté Ndakaaru dañuy gis ni am na maçon yoo xam ne dañuy utiliser gars yi liggéey loo leen ba pare di leen dawloo duñ lay fay seen xaalis est-ce que loolu egsi na si côté bii nii. non côté bi moom loolu moom bëriwu fi moom fii moom ku fa liggéey loolu moom booy wàcc ñu jox la sa xaalis fii moom booy wàcc rek ñu fay la waaw. fii wàcc sëgg si si nuñ koy waxee sëgg si gi fay. sëgg si fay bu mu koy booy wàcc boo yegg kër ga moom ñu lay fay waaye balaa ngaa jóge ci chantier bi ñu jox la sa xaalis. kon chantier yu bees yi gis nañ ni instant bi dëkk bi liggéey bi dëkk bi mu ngi màgg liggéey bi mu ngi commencé bëri côté bii nii parce que ñu gis nañ ni commencé na am ay chantier yu bees côté bi dëkku séeréer yi la léegi chantier yu bees yi est ce que gars yi ñu ngi fay normal est ce que maçon yi est ce que waa dëkk bi ñooy liggéey chantier yooyu wala ñu fi dëkkul ñooy liggéey chantier yooyu. waaw ñëpp nag ñëpp ñoo ngi fi ñëpp ngi fi ñi dëkk ci dëkk beeg ñi dëkkul fii yëpp moom ku nekk ak ki nga taamu rek moom ku nga taamu rek moom ngay jox liggéey waaw fii moom ñun moom ñu ngi ci moom fii moom surtout bi sax liggéey bu ma moom man maa ngi dëkk fële ci biir tooglu biir mm. waaye moom saa yu amee liggéey moom may woo ma ñëw fu nekk bu dee liggéey bu ndaw a xeebul bu ndaw xeebul bu mag yëpp moom daf may jox li ba ñuy liggéey moo sama benn grand waaw liggéey bi mu dox fii moom mu ngi dox bu baax a baax kay ñu ngi lay jaajëfal nga wax sa dernier mot ah dernier mot ah, ñoo ngi leen di sant yéen di leen gërëm ah, mënoon ngeen a ñëw seeti jaar feneen waaye ngeen xam ne fii moom war ngeen fee war a jaar ngeen jaar ci ñun ñu ngi leen di gërëm di leen sant. lan nga wax waa Diassigui TV. ya, ja ya, na gëna goor goor rek japp ci kii yalla dool leen xewal dool leen xoc dool sutura bu baa baa baax a baax. jaajëfate jëf one love ci TV wax ma one love ci TV. one love ci TV. ñu di la jaar. ñu ngi lay ci jaar bu baa baa ah, di la laaj yow maçon nga wala caroleur nga wala lan nga parce que ñu ngi lay gis sank ngay téye ay pel fi di pel di sànni. waaw gis nga mu ñun de ay carreleur lañ quoi mais des fois dañuy gagné fi ay chantier euh, dañoo am nation si ay batiment ak yooyu du benn métier rek lañ jàng quoi c'est pour cela que léeg-léeg da nga fiy gagné ay marché xam nga sous-traité ko ak sous ko ay maçon pour ñu mën si génn ak affaire yooyu noonu quoi c'est ça. est-ce que liggéey bi mu ngi dox fii. waaw si waaw fii ça avance body peu rek parce que booy xool dëkk bu bees la quoi dëkk bi booy xool gaayen gaay gars quoi mais comme ça sanjaanu bees la da ngay fortaatu ndànk-ndànk xam nga petit à petit doo dégg tubaab naan petit à petit l'oiseau fait son lit instant yi nag dañoo nekk si di defar suñu lii quoi c'est ça mais ndànk-ndànk rek. gis nañ ni aussi dëkk bi dëkk bu bees la loolu la gars yi di wax mais dëkk bi est am na avenir parce que dëkk buñ koy sanc boo xoolee di nga xam ndax dëkk bi dëkk buy màgg la wala du dëkk buy màgg lan nga gis ci loolu. ah bon man de d'après mes visions bon dëkk bi si euh, sama xalaat bu gàtt rek parce que ñu ay experts dañu góor góorlu di wax ak suñu xel mu sell dong dëkk bi booy xool bon am naa si yaakaar bu baax a baax ndax booy xool Macky sàll il paraît que ñëw na ba fii nii ci kanam côté centre bi. doon visiter euh, non visiter wul sax dafi ñëw teg première pierre pour ñuy tabax fii seen. Qui est un projet un projet qui bi projet euh, euh, prison bi quoi 100 mètres bi qui lañ ko andi Macky Sall fi ba première pierre et tout xam tu vois en plus tamit projet antenne réseau un bi mu ngi tout près. est ngay entrée bi non dugg projet ngay quoi tu vois. ñoom yàgg nañ fi trop yàgg nañ fi trop mais dëkk bi am nañ ci yaakaar bu baax xam nga booy xool parce que dëkk bi paysage bi montagne yeeg yooyu nga war a xam ni dëkk bi dëkk bu am avenir la. la sax boo xoolee parce que tubaab bi dañ bëgg genre paysage yi genre endroit yi même sax. te boo xoolee gis naa ni côté bële hectare yeeg yëpp naar yee ko moom. waaw ah, la demee boo duggee nii ci biir tamit naar yi moom lépp comme yow dafa mel ni da nga fi miin nag xanaa da nga am. fi daan ñëw nag di coytu di xool xam nga ñun journaliste yi fépp la ñuy dem. dëgg la loolu moom dëgg la yéen moom xam nga dooleen leen toog quoi. ñu bëggoon la laaj lan mooy sa dernier mot. man sama dernier mot mooy su ma sañoon xam nga rek euh, dëkk bi comme c'est mu ngi màgg petit à petit euh, état jéem ñu jàppale def ay gendarmerie ak yooyu noonu xam nga tu vois d'autant plus tamit maire bi si dëkk bi mu defar maire bi toog bu bees mu defar tali bi xam nga tari entrée dëkk bi quoi su ko defee xam nga dëkk bi xaw a dugg bi xaw a neex tuuti parce que booy xool booy dugg si dëkk bi 250 ngay pass aller 250 ngay pass retour c'est distance boo xam ne bëriwul mais tali bi moo causé yooyu yëpp. quoi tu vois parce que bu ñu defaroon tari yi normalement xam nga li ñu commencé fee dugg waaw yu bëri kam nga gars yi dinañ sant yàlla ndànk-ndànk quoi c'est sax lan nga wax waa Diassigui TV.

Nous sommes sa kaw sa kanam di len wax ni bon nañ ci émission trop trop trop trop trop di tamit merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup